Macky Sall président ci nguuram laa njëkk fanaanee kaso loolu moom man maa la koy waxaat pour Macky Sall dégg ko mu xam ne des di na gàncax du ko yëg fii laa nekk di raxas oto fii ci parking bii fekk Macky mi ngi waaj a génn pareegul sax moom génnagul xam naa sologul woon yére parce que yàgg na temps bi oto bi taxaw fii gars yi di daw si ma leen lan la ñu ne ma yow kaay ma technicien bi ñëw ndànk nee leen bu leen ma jàpp bàyyi ma ma dem dugg dugg ndank juróom fee central fa laa ba fajar waxuñu ma dara ñu ne ma booy diw ma ne ñu ne ma génnal ma génn ba ci escalier dugaat ne waa sëñ bi lu xew man fii laa ñu ne ma non Macky Sall moo doon jàll ngay raxas. benn affaire day amee yeneen section ñu ñëw bëgg a maasale laveur yëpp jàpp laveur yëpp te pourtant du noonu laveur yëpp waruñ leen jàpp ndaxte tey jii police mën na def liggéeyam sans mu ñëw jàpp laveur yëpp. lan la ñuy jàppee ay lavé te ñoom seen oto yi ñoo koy lavé seen moto yi ñoo koy lavé mais boo waxee ñu ne ay laveur ngeen ñu jàpp leen yóbbu. Omar Ibou ak modu ay ndaw lañu ni seen ay moroom yu bari fii ci réewum taax ñoom ñi leen nag ci wàllu raxas ak gaare woto la ñuy yëngu waaye de coono bu nekk lañ ci jànkonteel ak takk der yi. ñoom police yi bu ñu amee seen oto dañuy ñëw ñu nettoyé leen ko te bu ñu fekkee ñu nettoyé oto jàmbur ñu jàpp ñu te loolu xam nga rafetul te ñun fii lañ dëkk Sénégal ñu gis ni yor nañ jabar yor doom waaw mais xam nga liggéey bi ñàkk pexe la waaw terewul bu ñu xëyee ñëw daan suñ doole heure bi jot ñu dem ñibbi amul lu ñu benn problème mais daal lenn rek mooy suñu problème maanaam ramas jàpp booy di yóbbu. kon ñoom dañ koy def fréquemment. toujours bay la foofu ba vingt deux heures wala vingt et une heures ne la demal ñibbi demee tamit nga ñëwaat fii xam nga loolu bu yàggee mën nga dem di sàcc. dañuy ñëw rek fekk la ngay liggéey ñu jàpp la yóbbu. duñ la wax motif bi ñu la jàpp. duñ la wax benn motif dañ lay jàpp yóbbu. waaw léeg-léeg. est-ce que dañ jàpp ne newu leen ci yoon moo tax. non c'est-à-dire déggoo li ma la loo gis lu nekk rek dafa laaj organisation. muy maire bi muy pëlis suñ ñu bëggee jàppale dañ ñuy wax yéen laveur yëpp convoqué nañ leen commissariat central wala wala sous-préfet wala mairie plateau ñu ñëw bu ñu ñëwee ñu organiser ñu. grand agresseurs yi ñu ngi leen di war bëgg leen jàpp sàcc ñu ngi leen di wër bëgg leen jàpp bu ñu amoon leen lu ñu leen jox dañ koy def mais ñun sant yàlla jubluwuñ ci loolu dañoo ñëw rek pour xool benn affaire formé wuñu parking boo xoolee formé wuñu parking dañoo fekk ay parking yoo xam ne dañ ko dafa am lépp ñu ñëw nekk fa ak ñooñu xoolal parc ni am na ay gardien am na ay lépp ñu ñëw maanaam nit ku ñëw di jënd fii di dugg di lekk nga bëgg sa oto te ñun ndox bi ñuy utiliser bariwul ndax fii boo ñëwee di wax yenn affaire dañ noonu ñun du ñu utiliser ndox bu bari est-ce que comprendre nga parce que amuñu temps bi sax. bu la neexee ñu waxoo parce que xam nga àdduna moo tëddee noonu man parking laa yore bu fii feesee awuma droit gaare na leen si ginnaaw man loolu laa géré. mais nag xëy nañ ñu yorul parking ñooy def loolu waaw loolu nag mën nañ xool ñu yorul parkin di def loolu ñu am ak ñoom problème mais ñi nga xam ni parking lañ yore ñu teg leen fi ah ñooñu waruñu am ak ñoom problème. bu ñenn ci ñoom nag féete boulevard de la république fii ci ndakaaru ña sa des ñoom ñu nga féete ca wet ga jëm ba place de l'indépendance naam ñu ëpp ci ñoom nag. bu ñu sàmmoontewul sax ak yoon ci espace ya ñuy jëriñoo ñàkkul lu ñu di leen xoole léeg-léeg ay bëtu càcc. kenn du fi sàcc. xam non xamante nañ parce que man sama mag moo fi indi man ma am sama copain boo xamante ni bëgg na liggéey ma jël ko indi ko fii ñun noonu la ñu doxalee mais sàcc moom du fi am fii moom mosuma ko fi dégg waaw xanaa kay mën na am beneen côté parce que am na ñoo xam ni duñu gere nit jóge fa la ñëw di gaare oto nga koy seetaan si sa bërëb man du ma ko nangu. liggéey boo gis am na ñuy jël am na ñu dul jël man de sama loxo bi kenn mësu ko téye na ma yaa ngi dégg nii yow yaa jël fii lii wala yaa jël fee laa parce que damay vigilant sa oto boo ma koy jox dinaa loo fi bàyyi yaa ngi dégg nii dinaa ne la yaa ngi dégg vérifier sa oto bu baax nga xool lu ci nekk nga wax ma lu ci nekk lépp yaa ngi dégg nii. ma doog a jël sa caabi téye dégg ma am na ñoo xaman ne moom yàgg naa ñoom ñu am ci man confiance boo xamante ni tey bu ñuy ñëwee dañuy ñëw gaare yëkkat seen caabi jox ma parce que xam nañ ni man bu bàyyi woon foofu noonu un milliard tamit soxlawu ma ko. man oto loo ci mënti bàyyi da nga ko fay fekk man Omar loo fa mënti bàyyi da nga ko fay fekk kii gaare nii nga baal ma ambassade om kii mooy ambassadeur Oman ambassadeur la. xam naa dafa ñëwaat nii fan yi yaa ngi dégg otoom fu mu mënti toll des fois dafa may woone ma maa ngi nii di ñëw bu àndul ak chauffeur dafa may woone ma maa ngi nii di génnee nii comprendre am na caabi boo xam ne maa ko jox léegi benn oto bu fi taxawoon mu dem xoolil ma oto bi mu ngi côté fële ri Carnot daf ma koy jëlali indil ma ko keroog rek am na fi benn booy moom femme bi dafa jël oto bi jox léegi bi ma leen gisee ñuy wax ma ñëw ma ne ko si lan mu ne ah sama téléphone su nekkul si oto bi sama kër lay nekk ma ne ko léegi am ma génne sama téléphone ne ko wooteel mu woote muy sone mu ne léegi garawul maa ngi dem sama kër léegi mu dem këram ma toog ay deux heures de temps trois heures de temps woowu ma man tamit ma woo ko mu ne ma waa gis naa ko waaw parce que erreur voilà. ay gis nii oto yi yi seen caabee ngi nii am na caabi boo xam ne mu ngi nii yooyu budul confiance lii nga baal ma. xolal parking bi amul auto bu ci jar ben auto bu ci jar un million amul ay million la auto yi di jar kon li bu nit amul confiance ci yow du la ko jox. ke ci gëna a nak ci lamu def ci liggey bi amna ci juróom benni at. ñii dañuy laaj prix fixe ngir toppatoo la sa woto ñeneen ñom lo leen jox rek ñu jël. parce que xam nga nit man comme limay wax rek boy fi mëno garé nit nga ne ko dang may fay temps nga nan ko lo nga jox baana ku nekk lu mu la yéene rek mu jox la ko man noonu laay liggéey waaw. lu ñu la jox daal nga jël yow amoo exigence. non non lu ñu ma jox rek mu jël waaw moo ma gënal dem di dugg lu sama yoon nekkul. nit ki dina gaare léegi léegi ñëw jël xaalis bu takku jox la loolu seen diggante la yéen ñaar nit dina gaare nag léegi léegi ñëw jël benn weccet jox la ak action bi mu la ko joxee nga gis sa bopp ngay wax mooy la booy lii ak lii mais garaawul quoi parce que lii mooy fay ñun des mun nañ la na des fois 500. des fois la 1000 francs La bi 1000 francs la laver bi 1000 francs des fois nga gis 500 300 francs. am y yaay xam francs. non c'est-à-dire amul prix mais tamit léeg le nga taxaw waxale lula arrangé nga jël lula wul doko jël waaw. lu ci liñ di euh, jox. souvent ay 500 la souvent jox 1000 francs. bu bëree ba bari bu sa xarit lay doon mu sàkk ci wërsëgam yaa ngi dégg nii jox la. waaw ndax mos nga am ah, opportunité boobu dal ci loo xam ne yow sax gëme woon ne woon ne lii di nga ko am. non cest à ba ci ndax mos na la dal. mani mani dama lay jox benn exemple. yow mii nii ngay gis nii sa wërsëg mi ngi sa ñaari tànk yi gis nga jant bi penku lay génnee de mais soow lay duggee gis nga ku yore say tànk di dox jàppal ni dara jomb la sàccoo fenoo même sàcc bi sàcc sax bu yoree tànkam di dox day jël wërsëgam. am nga auto yi ñëpp yamuñu ki dina yëkëti lum mu la yéene weer jox la 10000 ñi jox la 5000 non la démé rek mhm. nga dajalé mhm. li nga jënd say rafetay ma leneen lu ci dess nga denc mhm. amna ño xamné wër lañ lay fay waaw wër amna ño xamni wër lañ lay fay ño xamanteni dañuy ñëw soxla ci banque bi li nga nekk fi ñu yagg fi ñu né ah ki kat fi la nekk bu ñëwé ñu jël seen auto jox la ko sant yalla franchement parler ñu ngi ciy gis suñu bopp ndax nak luñ ci am ñu ngi koy doylo señ bi yaangi dégg février bi fi jaar yow xam nga né dëkk bi aduna bi yëpp and ak crise mondiale la tudd crise mondiale lu ko fi indi mbass mi dégg nga nak ñu né di def sen déclaration way kat yeeg li ak lu né yaa koy dégg dégg nga ben laveur bu ci wax man dégguma té pourtant ñu ngi ciy taxale mu ngi metti nak mais ñu ngi ciy dem ak seeni ngor. maa ngi ci sant yàlla bu baax bu ma feebaree maa ngi ciy faju maa ngi ciy joxe dépense maa ngi ciy fay luyaas te bëgg naa ci tamit tabax kër ndaxte man maa soisir liggéey bi. Omar Ibou ak Modou nag ñoo ngi laajandi rek ngir ñu gën leen a gëddaal ci seen liggéey ci seen i kàddu sax xamal nañ ñu ne ay jàmbur yu bari ñoo nekk ci réew mi di fi tedd ci naka sudul noonu te jànkontu li ñu coono yi nga xam ne ñoom doomi réew mi. ñu ngi koy daj